Modou Mande Ndiaye Touba Mirina maa ngi dem ba sanc mu may nag uh, sama doom papa Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax di nuyu itam ana waa kër maam na ne bu nu xamee ba noppi jëfe dëgg la yéen ci Louga FM 88.7 salaamaaleykum ku baax kooku kan la waaw sëñ Modou yow foo nekkoon ah waay mais yaa ngi rek waaw ah, alhamdulilah dëgg la wallaay ndeysaan ma woote ci at comme at mu bees maa ngi dem waaw waaw dëgg la ndeysaan amin amin dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la non yaa rek amin amin jërëjëf Adja itam sëñ Modou Seye maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu itam waa Béjane waa Gorbel Kër Bassine Baye Mouhamadou Lamine Ngiraan ziar naa la bu baax ah dëgg la. Isa Singandao maa ngi nuyu waa Jolof Yàlla takk na sax ci Alxuraan ku nam ko meram Flamengo por latões, volta a ver que eu faço sacana. Wa dunda kalba kala sanjai. Pape Diagne ziar naa la bu baax a baax ndaw Kounda bi ziar naa la day ndaw yaay fàtti bu bàyyi ba ànd ak a taxaw di déglu jëwam xam nga kii taxaw di ko xaar naajeloo na kuy wuti ndam mani la kon demal ba ko fa xam bi juune moo di biram juune bul ko nit di taxaw kay ñu dem balaa yi wa dem waaye nuyu bàyyi bu bu njaay si jàmm maa ngi koy ziar bu baax baax di ko ndokkeel soxna Ndey soxna Safi imaam ziar naa la bu jàmm gën ay mun maa may sama boo dem ma nga taal rajo bi viddi ko ak mère salaamaaleykum mbokki mi ziar naa la. ku baax kooku kan la. waaw amee ziar naa la waay. ana waa Njaxate. ñu ngi baax rek. waaw alhamdulilah alhamdulilah. ana Mor Diop. ah maa ngi koy ziar waay. waaw alhamdulilah. ñu ngi delloo ziar. dëgg dëgg la amin amin amin amin dëgg la jërëjëf ndeysaan bu wayal waay Serigne Modou Ndiaye sanc buuna Listen. sa way waa ngoog Cheikh al Bekkay mooy sa baay kon sango baayu lalla sa yaay wàcc na danga boole ku baax ko kan la Baye Ndiaye loo sama sang ko kan la waa ko kan la Baye Ndiaye ah Baye Ndiaye kontaan naa de billaay dëgg la. li ma nekk tey ah. ah, ah, boobu ndaje kontaan na. ak Mari Mar. ah ah. ak Mambour Ndaw. waaw ndaw ko ndax. cere amu fi ba togg leen cere. bu ngeen toggee cere ndaw ko rek maanaam ndokkeel ñi ñi ndokkelante rek. Wow, mangi ngi siyaare amin. amin. amin. amin amin amin ambek sol khati dama mara ah jaw fara yaa nga ko wax de deug la ah wow kon dañ lay ñaanal rek nañ la daan ñaanal rek la deug la ñaanal suñu yaay ju baax ja ah wa mer Diop yal na yàlla yokk ay xéewalam. amin amin guddal faram ay cëram. amin ah di jaare maire Fary Fall. ah waaw. tey nag moo tax maa ngi jaare njabootu Maguette Gueye ci Thiamène. dëgg la. di jaare képp ku lay déglu. wallaay ndeysaan. ah Baye Baara nit maa ngi jaare. ah Baye Baara yaa Dakar doomu aadama. waaw ah, Mbaar Farkelli. wolof Njaay nee na ku lim doo juum da nga dul matal. da nga dul matal wallaay da nga dul matal. di wax ni ñu ngi siyaare képp ku lay déglu. dëgg na yàlla guddal fan yi ndaw ko ndaabe ah. allo ndaw ko ndaa na nga def. waaye maa ngi sant yàlla waaye fay bu baax a baax. na soxna yi. de ñi fi rek. amin amin amin amin amin amin amin alhamdulilah barikalla wallahi ndaw yàlla yàlla guddal fan amin amin boole ko ñëpp képp julit amin amin bale sëñ Mbàkke maaram bakkasa jaajëf waay jaajëf ngi ziar baax a na képp xam yaa ngi déglu ah ndeysaan ndeysaan waa nuyu waa Kër Bassine ak waa Fass Ndaween na imaam ziar naa la bu baax imaam bàcci ndaw 33 967 43 00 nuyu waa kër limaamul mahdi yu almuntazar ñoom xujalaay ziar naa leen bu baax baax di nuyu itam waa Ndangur Sëng Ndangur Njaay Ndangur Dakar Ndangur Jàmm Njaay kër bu mi bu siraloo Palen Jëng Racine ziar naa leen bu baax euh, bitim ah. waaye di nuyu bu baax baax si si di Mbàkke Tuuba kër bu mi ñu xool sengaar lu ñuy tegalan ah. ah, waa Kawtara loo sama kër maam asalaamaaleykum ay salaam wa rahmatullah ko kan la waay ah Maga Seck fooy woote Njoobinu Kër Masall am nañu sant Jóob foofu Đúng không? Wow. Waaye maa ngi fay ñu ñëpp waaye samay bokki bokk. ñoo am beeleñ waaw. Ndeysaan dëgg la. dëgg la. mais yéen a ko moom yéen a ko moom. ak Serigne Touba yéen a ko moom. billaahi. sëf mbaam dëgg la mhm. dëgg la aha Modou Diop ah kooku de sëf mbaam buñ ko sëfalee ci saaku ceeb moo tax mooy ree dëgg la baay waaw ku baax la de. waaw ndeysaan xol ba sedd na maaraam ne moom xam nga moom maaraam ñëpp moom ndawalu guddi la gu njóobeen yi tiim boo demee kër njóobeen googu kër ma sàll njóobeen yi tiim yi ndawal ku ne yaakaar sama rakki bopp nag moo nekk noonu mooy xujalay bu imam al Mahdi al Muntasar diko ko nu may nijaayam Mor ba nek fi ci njobene sama yaay Aram job ak wa keur ga jogu cham sama mam serif Dudullahi Muxtaar khalifa bi yàlla fi yàgg te mon mool ma وينهى xam ngeen ne salaamaaleykum ah billaay bar ah yow de boo demee kër bi si Saad bu baax dëgg la soxna Koddu bàjjen bu kay kii daa départ xam ne Baye Ndiaye Tukulay moom su Tukulay rek la pare woon. waaw. Oh. ak suñu mbokk yu baax yi nga xam ne ku mel ne Mbaal. Mm-hmm. ak uh, kii Mor Mbaye. Mm-hmm. Ndiagoure. waaw. 43 43. boobu ci laa ko mujj tëj waaye bu léegi bu a a. yàgg man boobu juddoo gu ma sax. ah déedéet waa ji ma. 103 boobu gënee gu ma àdduna sax. ah boo demee ñaar yu ma nawet si sax. ndeysaan ndeysaan. moo tax bakkan daa xam naa bëri waaye boo ko ah noo waajaguloo déedéet déedéet déedéet dëgg la jërëjëf jërëjëf wallaay hmm. Hmm. amin amin amin barke Seydine Babacar Si dal yàlla sàmm nga bu bàyyi rajo bi bayuma kenn. jërëjëf xam nga dafa mm. allah jërëjëf. yi yëpp la ci Mbacke Kajoor. jërëjëf. nee naa lépp lu mm-hmm. mbokk yi def nga jëlum kër Amady. incha allah daañu réseau bi moo xaw a doy waar réseau bi moo naqari moo doy waar yëkkatil ma xuja lay sama rakki bopp bam ñëwee kenn werantewu ko de so nambenloogi sakkal alluwa nuyul ma maire ana bàyyi libaas ci dëkk bu rëy bàyyi mbay loo mooy yone salaamaaleykum allo sant yàlla baax tabaarikàlla ñu ngi sant yàlla baax waa sedd bi de mi ngi nii rek wallaay dëgg la waaw yow a dégg waaye jàmm rek la woon dëgg waa xam naa la Serif taalibe na Cheikh Saad bu billaay moo sopp wàllu budu ndeysaan mais day bañ nga comme gëne sekk ca bànday moom buy daanu moom dëgg la dëgg la 86 point 7 fii ci Louga hmm. dëgg la Jibi Njaay Soxna Maane dëgg doo juum da nga dul mot lay. ah waaw Baye Baar Loum de loolu lay wax. waaw kon nag nuyu naa ñëpp daal. dëgg la. man maa di euh, yónnee euh, ndeysaan. cas damay daal di bàllu àq ñëpp ñi nga xam ne rek euh, doon nañ ma déglu fi ci Louga FM 88 point ak jigéen mag ak ndaw ak ñi nga xam ne daañu ma suivre ci YouTube bi ci Mbadiar TV yëpp maa ngi leen di bàllu àq man mu ma faj auditeurs yi ndax dama nekk rajo ñëpp dem bàyyi xel mu seen YouTube télévision ñëpp topp ma ci ci Mbadiar TV kon mënu leen a faj ay seen ñaara nangu rek kiraan dégg bu la neexee jàkkaarloog moom walan yaxrifo émission bi heure bu jeexee rek bu amee ñetti waxtu soo demee tuut fekk ko mais asalaamaaleykum loo sama sank ba eh Serigne Pape na mun naa la de. ah waaye maa ngi nii rek si si. waa la. Pape mooy sa taalibi xaatu kooka. Senghar Senghar mi ngi lay dégg de. mi ngi lay ah, ah. na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax. amin amin amin ay waay yàlla na ko sedd aljana. fekk ji ànd dëgg la. yàlla ñu sàmm na saa na ma naa la waaye fii la ëppee billaay. dañu ñëw gisante. wax nga dëgg rek. yàlla yàlla sàmm ñëpp. wallaay ndeysaan. ba sama xarit ba. waaw Mor Mbaye ak préparateur rajo gér na la foo dégg Baye Mbaye Diop yàllaay ajiwo ajiwo ndeysaan moo yéene salaamaaleykum waaleykum salaam ah ko kan la ko kan la lobe ah ana waa jaajoor de ak seen sooy bu Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine waaye nuyul ma baax ndeysaan ñu ngi sant yàlla bu baax baax baay mbay di la wallaay ñu ngi lay fay di la baal àq te nag nu baal yal nañu yàlla boole baal waaye la dëgg la dëgg la ndeysaan dëgg la kontaan nag macha allah. dëgg la. ndax émission yi moom boo demee Mbadiar TV da nga ko fa fekk. waaw ah, waaw loolu la de. billaahi seen ñaana nangu nag. nga jàng fa. Mhm. xam fa loo xamul dëgg la seen ñaana nangu de. kontaan nañ trop billaahi. wallaay dëgg la. waa kay bi yéen a ko moom comme rajo bi ndeysaan. kon ah, daal dem nag euh, kër sëñ na euh, borom os février. cay sekk mu ay waay sëñ Assane Seck yàlla na fi yàgg di ndokkal waa kër Gumba de. dëgg Hasan. Ah. En 1875, Samba Sadio. <laughs> Pas Murtada yal la fi ana Diop. Bakaya. Kër Omar. sama yaay RM Job ziar nako bu baax ndokkal nako. salaamaaleykum ah borom Tongel ah seen waxtaan wi de maa ngi fan yii bëgg na maa ñëw de waaw incha allah dëgg la wallaay ndeysaan xale bu yaru mhm. Mhm. ndeysaan dëgg la ana bàyyi seer dëgg la. maa sama goro. dëgg la. waaw eh. di ko di ziar bu baax di nuyu Cheikh Bara Diop. abrom abrom ñebe ji. <laughs> la sëñ xam naa ne ndeysaan sànq teg kii bu daw yaram ndeysaan Abdou Aziz bi moom monsieur le ñang bi bu leen fàttali hop السلام عليكم كوكالا سيدي با فنجي واتي الو سيدي اه جيت اردو سما دك بوب انا خليفه بي وا بسم الله سيدي نيل مس مير ياسين كان جاي زيار ايو آه، سيدي مانغلي فاي سما خريتو بوب اللهم امين سيدي با ah waaye Sidi da ngaa baax de wallaay ana mère Yacine sama jigéen boobu ay waaye nuyul ma ko numéro daf ma réer ndeysaan wallaay yéen baax rek dëkku maam ajuma dëgg la ndeysaan maa ngi nuyu nuyul ma waaw maa ngi lay dégg allo Sidi ndeysaan réew mi moo neexu maa ngi nuyu ñoom Omar ah, ah, arce neex cher naa ko bu baax a baax di nuyu itam waa Guet Ardo di nuyu xalif meer Yacine di naa ko ah, di nuyu sama xarit Adama nekk ci Maymoun ndeysaan gën naa ko dégg mais dama ko namm trop ndeysaan dama rom nag fekk moori